fréquenter des jeunes yi nga xamante ni seen comportement baxul jeunes yooyu daat koy wàll. Mhm. jeunes yoy xamal ko ni ko booy fii daal Dakar bo fi bëggé téki fexel ba deuguer fit fexel ba dugg ci agression bi. ni ko Mbaye Babacar waxee duggal ci cannabis bi. yoral ci affaire yi. Mhm. kon koku mu commencé gatt xel commencé am mauvais comportement. Mhm. parce que c'est acquis du lo xam ka juddu walé wala dañ ko koo yéré mais milieu bi mu nekk ñoom ñoo ko ci dugal mun euh, maanaam xel conscient nek inconsciente ki nga ne xelam dafa conscient mom day Papa Chérif mais jëflante gi muy Papa Chérif mom moko ko pour bëgg Chérif deal mhm. ko 50000 wala mu ko 100000 je suis xel la wala euh, ki nga xamante tam, moy Chérif di jëflanteek Papa Chérif dem ba ci biir trahir ko wala mu war ko loolu ci gàtt xel la bokk. mais kooku c'est conscient parce que c'est programmé. moom bi muy dem di jëflanteeg Papa Chérif intention programme na ni da koy nax. programme na ni da koy wor. programme na ni dafa dem pour teg ko deal. mais ki nga xamante ne gàtt xelam un inconscient mooy maam Khalifa mu féex bàyyi ba midi et demi une heure deux heures mu jekk ba si yàgg rek ne ay Sall koŋ Aida ubbil ko mu ne faax ci biir chambre ak coucher ayda di waxtaan tëdd di langale langale wax na def na façon bu nekk pour maam xalifa dem mm. parce que am na rendez-vous bu muy bañ a tardé mm-hmm. te bëgg ko koo wax mu koy frustré maam Khalifa jaaxaan ci kaw lalam rek tëdd rek taw a dem tëdd muy gën a defaru des fois mu ne ko Aida lu nekk ci frigo bi Aida <laughs> añ pare na wala añ parewul kooku gàtt xelam inconscient la elle est inconsciente mhm. et inconsciente de de ça mhm. parce que moom xamul ni sax mi ngi lor nit ki te loolu nag moo bëri mhm. am na ñoo xamante ne dañuy lor nit te xamuñu ni ñi ngi lor nit ki wallaay dëgg la kon loolu buñ ko topé, ak ki nga xamante volontaire ak ki nga xamante involontaire la man maa tay, tey ma def jëfi gatt xel ak soxna Aïda dem bay mais Mbaye Babacar nak mun def lo nga xamante tayu ko mais day dugg ci jëfu gàtt xel mm-hmm. kon gàtt xel ba ci sax comportement tey jii bu ma waree ñëw ma ma toog nii man naa fexe ba naa sol lu rafet naa fexe ba naa xeeñ lu neex mm-hmm. bokk na ci gàtt xel tamit nga dend ak nit sa xet gi di ëbbale oh, ñëpp mais loolu gàtt xel la mun nga ci bañ a consciente nag mm-hmm. bokk na ci gàtt xel mi ngi noonu daal xam naa ne suñ ko waaw duñ ko mën a développé tey soxna Aida foofu la ñuy yu ndaw yu nga waaw koy xeeb dañ koy xeeb c'est très important bilaay mhm. di nga wax nii waaw que des fois da ngay dugg ci oto même ki ngay dendal maa mhm. parce que nag doo ni man ma tayu ma ko dëgg la quand tu te lèves le matin mhm. jënd mais am na ñu nga xamante ni tayal nañu def loolu loolu ci xeetu gàtt xel la dëgg la des aussi xam nga fi ñu tubaab yu rawee mooy ñoom dañuy jaar ci digg ba bu dee ñun dañuy maslaax. Mhm. ñun loolu mooy problème bi. Mhm. tey tey mën nga ñëw seet tubaab ci këram mun na non je suis désolé dama war a génn. dama war a génn mhm. naam kenn ki sax du ko gisee dara parce que xam na ni jotam mayu ko ko. mais bu dee ñun dañ naan xool ko léegi dafa fuuy dafa yëg boppam. xamul boppam. loolu moo tax waaye fii moom dootuma fi dëggati sama temps ndax daf ma ñàkkee kersa. Oh. te alors que du loolu. du mhm. loolu le temps est précieux maintenant. nit ñi dañuy daw rek kenn toogatul. moo tax yenn ci bi naan déedéet amul temps temps moo amatul. bala ngeen di dugg kër jaamu déedéet yëglu. voilà sa jabar bi ngay sëyal sa bala ngay dugg ci biir néeg bi ak sa déedéet yëglu. te loolu nga wax nii tey fi tey boo ko ñun la léegi tubab la dafa yëg boppam. bo wootee téléphone ndax ma ñew sa kër mais léegi nit ñang koy def sax. pourtant wallahi ñun ñaa ngi koy def mais néew na ah moom de boko ko woowul moom doo ko jot. boko wallaay boo te duñu xam lan la kenn du dem këram. duñu xam lan la situation bi dañ lay juger sans pour autant ñom ñu xam la mhm. comprendre nga. Mhm. dañ lay jugé ñoom étiqueté nañ la ba pare. léegi ba pare benn étiquette bu nga xamante ne yow moom nga def sa ginnaaw. Mhm. te loolu dafay law xam nga wax dafay law. dëgg la wax bu lawee rek ñun ñëpp di la jugé teg baaxul. kàddu ci boppam moo baaxul. moo yi nga xamante ne nag ñun ñi des fois dañ koy jël di ko néewal. Mhm. fekk na di ngay néewal important na ci ki nga xamante ni moom moom moom moom nga koy def jantal. voilà mooy AGP bi ma la doon expliquer sànq rek attitude. geste parole c'est important. xam Eh, Serigne Cheikh day wax ni ku ñak yar tel ko tel ko wax ni nga mëne ki gatt xel nak mhm. téla la xam foy yam ak mo bu ko laq fu sori exactement bu ko laq fu sori <laughs> parce que aussi wax deug yalla euh gatt xel dafa nek affaire bu doy war comme li li xew ci ci ci ci ci ci ci société bi dang kay gis day feñ bu baax sa ci attitude nit ñi mhm. voilà am na heure yoo xam ne kenn du ko seeti nit. Mhm. xeetu gàtt xel la toog ba 22h couple. wala 23 nga fa nga toog fa. Mhm. génnoo ataaye nañ delloo nañ bunt bi comme li nga wax summeeku na changé na def na fex na def na ay geste de communication sans parole xam nga wax nit di nga communiquer ak moom saa nga wax. mais jéem ngaa fay télé bi changé nga kii bi mais déggul daaj mooy lu ñuy wax ku déggul daaj. wala dafa nangul déggul daaj nag xam nga lan nga def ak moom. sëñ bi may ma wax dëgg yàlla suba damaa am damaa war a ja damaa hmm? war a liggéey suba voilà parce que kooku maslaa baax na waaye maslaa ba ñu maaseelal tamit baaxul hmm. dafa am koy maslaawal am ko xam ne doo maslaa ak moom mam xalifa détaillé na ko sànq ki nga xam ne dafa dafa jël intention wu ñàkk yar mu jouer le jeu ñëw fa di def lu ko neex kooku da koy teel a mettre à sa place ki nga xam ne moom dafa tëxit tëxit boppam comme ni ñuy tooñee Pape Malick Mbaye <laughs> moom moom moom moom dafa neex a neex a neex ba moom moom xeetu tëxit la yore moom yoonam nekkul ci dara mun na fekk plateau bi sax ñuy wax nii mu ñëw dugg toog amul problème boobu noonu <laughs> yàlla ko bindee noonu ñu koy ñaanal gudd fan ak wér fatabarakalla suñu soppi la suñu xarit la suñu suñu la donc dafa am ay nit ñu neex uh-huh. nga xam ne sur le plan mën nañu jouer mais nag ay nit lañ mais ñoom dañuy dañuy dañuy ruube nii rek

afalam takunu te ngeen a delluwaat ginnaaw te interroger waat te xilu na sinnite parce que toujours day bëgg nit ki di utiliser xelam. la parce que xel boo amul xel mënoo nekk ci société bi sax déjà. ci xel ci ngay xamee ne sa yére set na nga sol. xel mooy dawal oto xel ci intelligence la ñuy ñawee intelligence ci ci palaasu liggéeykaay ci ngay liggéey ci intelligence ci ngay jàngee pour mën a xam lépp xel moo koy def. nit ki nag léegi-léegi mu topp sagoom topp sagoom ba sàggane loolu mhm. di def yëfu ku ñàkk xel te fekk am na xel maam mhm. xalifa ci xeetu attitude am day dem ba am na xel muus na amul xel mu gàtt mais moom ci société bi ci ni ñuy dundee moom mooy jël lanta lan tadxulal jannata xataa tuxminu walam tuxminu xataa taxaabu xataa yuxibu li axihi ma yuxibu li nafsi individualisme nit koo xam ne boppam kese maam xalifa mhm. nit ko xam ne boppam kese moo ko ñor moo ko boppam kese kese bu su ma génnoon maam xalifa nii mbuur lañ jëm xooluma ndax maam xalifa dañuy war a ànd demul ma damay jël soxla dem waaw bu ñu amee lu ñu séddale comme ça mu ne ko furaax teg ko fii téye ko bu xoolee bu ñuy bu ñuy saytu benn mbir su ko arrangé mu def ko bu fekkee ne gisu si intérêt personnel la mu bàyyi. maa koo xam ne boppam rek moo ko ñor yoonam ci keneen ba si famille bi sax dangay ngay gis yenn yenn yenn kii yi ñuy def Euh, yenn réunion yi yenn charge yi ñuy def si kër gi boppam la lijjanti moom bu si gisee boppam mu def bu si boppam du ko def loolu tamit bokkul ci éducation bokkul ci am xel lu ñuy wax xelu mhm. bokkul ci nite tamit aussi nit da ngay nite mhm. bu la yàlla bindee bind la mooñaale la ak ak ruux mooñaale la ak xel da ngay utiliser sa xel xel dañ koy utiliser olof day wax ni xel jariñul lu dul xalaat mhm. kon il faut que ñuy xalaat xalaat ci la tubaab bi defee avion xalaat ci la ñu defaree oto xel dañ koy utiliser boo demee ba mutu mënutoo utiliser sa xel soxna Aida jaratul ngay dund sa dund gi dee moo ko gën dëgg la dëgg la kon donc euh, ki nga xamante ne euh, dafa ñàkk xel toujours nañ koy dimbali aussi mm-hmm. ki ñàkk xel dañoo war di ko dimbali bu fekkee dañoo dem ba reconnaître dafa ñàkk xel dañ koy dimbali di ko baal di ko pardonner <laughs> te xeetu soo ko deful àdduna tukki. am na ñoo xam léeg-léeg nga ñu ne ah, ah, ah xaw ma nii la am na ñoo xam ne ñu neex a. teg ci yoon waaye am na ñoo xam ne kenn mënu leen teg ci yoon. dëgër nañu bopp gàtt nañu xel. Mm-hmm. Euh, yaradiku nañu. ki euh, gàtt xel nañ boog pour te dire. gàtt xel philosophie nga xam ne da nga koy orienté sax mu jàpp ni moom ki gàtt xel à chaque fois foo fekk ku gàtt xel son ayda seetlul dafay dëgër bopp. ci lim nekk day jàpp ni moo nekk ci lu gën. <laughs> dëgg buy weerante buy day wax nit ñi dañuy nekk ci guy gi mu ne ca Dakar gi. ba pare nag dëgër ci daqaar gi dëgër boo xam ne mënoo fexe fexe ba. waaw jant baa ngi nii <laughs> naka day waxaat. kooku dafay naqadee wax. xam nga des fois gàtt xel dañ lay jël sax ba euh, euh, taf la ci nof. walaay dinaa ko yow ki ah dafa wér yow bàyyi ma kii man wér ma des fois loolu lay wax je te jure. nekkul ni ñi sol sagar rek ñoo doon. wallaay wallaay nit dina def yenn comportement yoo xam ne da nga koy classé si. sama benn tante de ne woon dama ay dama ni ko waaw mais est-ce que xam nga ne dof yaa ngi ci biir nit ñi fees bi de. wax na dëgg mun nañu nekk dalal xel. dafa ñu dem mais nit ñi def nit ñi ci biir nit. dañ leen a tooñ ndax ñooñu. fees bi de je te jure wallaay ñu ëpp si nit ñi ay dof la. <laughs> ne ne neexut a wax nag. dëgg la non di wax dëgg la. di wax ak yow. ñu ëpp si nit ñi wala ay dof la dëgg la. Mmh. et puis. Mmh. Euh, gis ni ñàkk nangu itam. day mmh. indi gàtt xel. gis nga euh, yemale. Euh, maam sëñ Tuubaa dafay wax ni. gën a laatee tàmbali si yemale ñaan yemul mm-hmm. yàlla moo ko nammee noonu mm-hmm. bu ko neexoon benn aljana firdaws lay def mais juróom-ñett aljana moo am mm-hmm. kon si biir aljana yooyu am na aljana gërtu béy moo tane <laughs> moo tane safara c'est-à-dire aji dugg VIP rek waaw xam nga VIP ndax ki ñu sopp VIP la jël xam tax xam tax VIP. Mhm. dafa am àddana bu gën a kawe ak bu gën a suufe mhm. bu gën a suufe mën nañ jàpp ne àddana àjjana ba géttu bay la mhm. mais nag gën wàll kasara moo gën kasara ku duggul ku duggul VIP saxal <laughs> ba def suñu àjjana bu bul dem safara nga xam ni mm, li ñu wax ni éducation la sànq wax euh, yaa seedaa wax na ko dafa am ñoo xam ne yàlla daf leen euh, euh, féetaloo gis nga expression boobu olof na nga koy wax mooy aakimu akimu ah, waaw mhm. akimu ah, daf leen neex waaw mhm. fu ñu dem wane ko gis nga mag ñi daaw ñu mhm. bëgg loolu ndax sëñ Babacar amoon na ku mu yónni guro mu dem jëw mais daf ko digal ni ko bu si gën mag bul ma ko jëndal ndax lu ñu bëgg man sëñ Babacar amatuma soxla mu ne bu si gën tuuti nag bul ma indi itam ak lu kenn soxlawul man man sëñ Babacar amul soxla nag mu guro gu yema may maanaam foofu mu ngi jàngale nit ki waroo yóbbu xelu nit. Mm-hmm. am na ñoo xam ne tey benn ndawal bu bu bu desoon. wallaay boo leen boo yéexee rek. Mm-hmm. ñu nu ko cas. bu bu fekkee dagg bi sax daf leen du day metti parce que bu boo boo daggee mu des balaa ngay indiwaat sa loxo keneen yoor da nga koy lump far <laughs> <laughs> da nga koy lump. <laughs>

kuko fi sol bu defone comme yow do fek nok mu sel bo duggee su douche fek fa sata la mm. ñu ro ñu rot ko ba pare rotak. ko li nga xam ne lañ koy sal ya ya ayda lu muy wax nit ñi neexu ñoo jubanti mm-hmm. ka ma doon wax mbiru sat la boobu dam ko yelif motax ma sañ ko wax euh ndax eh, señ babakar mm-hmm. bu señ Abdou sidda bax dafa ni bala ngay wax nit deug il faut ñetti daj nga yëlif ko sa yoon nekk si wala ñu laaj la ko que loolu man ko xale yi boo déggee ñu ma leen wax ñu root satala gi danañu mag ñi danaan wax loo fekk ñu defar ko boo si xawee yàq boo si paree nga defaraat ko na nga ko fekkee wax mu root satala bi mais ba léegi ka may wax gisul yar ga may def sa xale yi mu ngi may wax ni waaw robine bi mu ngi xel li man ko waa d'accord robinet bi mu ngi xel li léegi nag bu fekkee robinet bi mu ngi xel li root la satala bi nit ki dugg si biir douche bi robinet bi tej satala bi rootuñu ko. Mm-hmm. legi mom bu defaro ba par numuy def. xam mm-hmm. kon nga xam ni euh, même pour djema yar nit ñi sax comme nu ngay wax ni sax. Mm-hmm. senegal toll nañ fo xamni ko koo ne moytul oto baag lay bëgg fi wallahi au mu la la jërëjëf parce que bëggoo mu loru. mu neex mal ko gëna gis. dëgg la legi <laughs> nak fi ñu toll ni lu baax fu mu tumarank rek safaan jël walam Mhm. Sénégal dafa mel ne yërmande daf fi jóge ngir yàlla mhm. bu ñu doon wax ni yaa seeda wax na ko nee na booy ba booy def dangay def ngir yàlla mhm. pour def kii ragal yàlla itam daf fi jële ndax ku ñeme yàlla te ragalu yàlla bind itam bokk na su su su xel léegi yooyu bu fi jógee lu fi ñëw bopp sa bopp mën sa moroom duma loo gën a mën sa borom da ko koy wan wallaay te kooku su gàtt xel mën sa moroom duma ak lu yaay sedda dafa rokki mi rokki defal ma ma defal mm-hmm. léegi ndax Sénégal foofu lañ toll mm-hmm. léegi nag bu ñu demee nag ba nga xam ne ngir yàlla amatul ak rokki mi rokk defal ma defal la am na ñoo xam ne dundin gi day métti mm-hmm. parce que yow da ngay gis benn oto boo xam ne benn place boo xam ne ñett oto mën nañ fa gaare mu gaare fa noo xam ne moom kenn rek a fi mën a gaare beneen oto bu fa ñëwee du yeneen ñaar oto bu ñëwee duñ dugg parce que na mu gaaree moo ñaaw auto yu bari garé nit ñi nek su tante bi mhm. yakamti na fës tok su tante bi nangam mu ñew garé fàttalu mat juroom ñent auto mhm. xamni ni des fois da ngay gis radio ñu ñuy wax oto numéro sangam ko ko mhm. mom ne ko génne ndax mu ngi ah, mu ngi pour mën permettre nit ki mu génn mu ngi fat da ngay gis eh, xew am ben kër bo xamni ben douche la am yow nga dugg su douche bi def li ngay def da nga wara a gaaw li ngay def baral ba pare bëgg nek du fa fóot ay musuwaar wala du fa jëm japp du du japp kay dus bo xamni nit mën nañ ko soxla yow dang fa wara def lu gaaw bala kenen ko xamni mën na am du ko dab te hmm. mën ta xaar mu bañ lool itam dafa nek su xettu gart xel hmm. gart xel ñuy séddale dara jox la nga séddale yow nga ñew am lo ci tonne wax sa ben sa ben rak dom niko ko ma li keur ga hmm yow ñu ngi lay wax xam xamagul ndax mu mar nak yow nak nga daldi dem nañu ba nga xamni ne na ñi bal ñen ñi nga xamni ne ñu ngi organiser dañuy wut ay daaira ah. ñom ñu leen di servir serviral wala goor ñi parce que goor ñi dafa melna ñoo gëna ñoo gëna xarañ ci affaire ñoo gëna xarañ ci affaire ñoo ci gëna jup dafa melna ñoo ci xaw jup sax jup jup daf jub dafa gëna euh, gëna man deug la gis nga gàtt xel dafa sew mhm. mën nga ko def te do ko yek mën nga dem foo xam ne dañoo néew doole. Mhm. bu fa wane sa doole. wallaay. du ma ne man maay nga dem par exemple sa benn jànq ñu ni dañ koy de day day day mariage nga sol sa brodé boo xam ne wala dañ koy maye. jànq boo yor nga sol sa brodé wala sa jasneer boo xam ne. Euh, lu tubaab bi wax ni il ne faut plus belle la mariée. Mhm. kooku bokkul su sa xel mm-hmm. nga ñëw mel fa noo xam ne ku gàtt xel bu ñëwee sax day yaakaar ne yow yaay marié bi oh. mm-hmm. ku xamul lu fi xew ah, ah, loolu itam bokkul su du teggin mm-hmm. bokkul su xel nit da du yar nit euh, dafa am noo xam ne booy dem si ñoom da ngay xaw wàcc sa bopp man mas na ma dal moo tax léegi marié yi dañuy sañ sañse lu ñu mën ah, dëgg la ndax buñ ko defulee ñii ñëw ca xew ma dañuy def lu ne dëgg la man mas na ma dal te loolu ku nekk war na koo bàyyi ma dem mission Mali ba may dem mission wut naa juróom-ñaari cravate xaw maa ngi dem mission xaw mu damay dem mais ba may ñëw directeur général bu may jël si Noum Traoré yàlla na ko yàlla yërëm moo nekkoon directeur général lu PMI Mali ak ay dara secrétaire général ñooñu ñëpp ñu ngi sol ay saayireen ay chemise oyof mais ba may wàcc seen leen rek dama tekk sama cravate dugal sama poste ndax yow waroo taxaw sa biir kilifa du fa mel nu fa sa kilifa melu yow bu nu toogee jataay sa kilifa waro ko ñëk naan mhm. waro ko njëkk toog mhm. kala mak ya ko war ñëk jotali ba mu pare mhm. nga naan éducation la am na benn bés mo waxtaan mo ni bula bunda bun la joxee yekkale ndab nga lekk ba suur fexeel ba foo raxase ndab bi bo amul lo ci bol na nga raxas ndab bam set takkaat ko nga dellu mais waxna ko benn bés amna suñu benn ku nekk riche dafa ni ma fekk madame si mu ngi ma jox kaas café nee na Cissé da wax loolu ma dégg rek ma daal di daw jël café gi hmm. kaasu café bi raxas ko rek dem dëpp demaat ko dëpp parce que ba ma koy jox bu ngi seet defal ma café mais jàpp naa ni comme ni nga wax loolu rek sévri na ma café naa dugg fale raxasaat parce que bu fekkee ku nekk dana la jox café nga naan hmm. takk mu tilim keneen bu ñëwee du am kaas café bu set hmm. donc baax na dans le geste dans le quotidien nit ñi du bàyyi xel su su nu ñuy lu nu bokk nit ñi ñu xool lu leen arrangé. Mhm. mais ñu xoolaale itam liy dérangé seen morom. xam nga gàtt xel ak savoir dafa mel ne. dafa jege dafa jeg dafa dafa bokk sax gàtt ak. su manque de savoir vivre la nag nga jël ñaar ñëpp nag nga boole ko. voilà voilà. <laughs> ñëw na kenn ku ñëw mhm. léeg-léeg gàtt de bonne foi day am. te doo ko yëg mhm. ñëw si jàkk ji rek am benn pompe déodorant. waaw du ko pompe si ko ña ña amoon asma yëpp. yaa ko ñoo ko wax xamoo ko asma wallaahi xamoo ko asma wallaahi Mm-hmm. bëgg bëgg kii. Mm-hmm. am na ñoo xam ne itam dañuy gàtt xel dañuy bëgg def parfum mais euh, parfum ak déodorant doo ko mm-hmm. xëppoo. du saafara booy diw da ngay pis rek tuuti mu am tuuti subtil hauteur mais bu demee ba fës. day fàtt nit ki. boobu de gis naa ci sama bopp. <laughs> day fàtt nit boobu laa koy doxalee moom. day fàtt itam euh, pour ma tëj wax nga uh-huh. affaire hygiène. Uh-huh. nga nekk ak nit. wallaay moom bu bu ñëwee man dama koy wax. du sax wax ju ñàkk tegg ni mhm. mais benn kilifa nee na kuy lekk da ngay raxasu balaa ngay lekk mhm. boo lekkee pare da ngay raxasu mhm. yow itam góor ak jigéen ba leen di seeq na ngeen raxasu na ngeen raxas cër yi nu ngeen raxas seen loxo na raxas cër yi parce que nit dana yëkkati poqataan nga yaakaar ni pël mbalit la ñu ubbi. <laughs> wallaay dëgg la. c'est vrai wala nga romb nit wala nit romb la nga yaakaar oto mbalit moo la romb. <laughs> donc gàtt xam ci hygiène. yow lu ngay nekk bilaay dafa am dafa am dafa am nga baal ma de. wax ju tegg ne dañuy waxtaane rek. fii si jamonoy tey. Mhm. mais war nañu seetaat <laughs> vraiment. te li ci gën a bon gis nga yaa ngi wax hygiène wala dugg su douche. waaw yàq ko yàq boo xam ne ku fa ñëw sax boo amoon envie dara. dootoo sa da nga xaaral ba dem ba kër ga. wallaay ko kër ga. li nga wax nii c'est très important kon nag gàtt xel. wallaay bokk na si hygiène. wallaay du nit ñi bokk. yow boo ñëwee douche defaraat ko. wallaay rootaatal sottiwaatal ndox rootal siwo sotti ndox. Mhm. ah yooyu yëpp daal. war nañ ci bàyyi xel wala nga tox di tox ñu jéggal nag su ak wala nga ñëw du tox du kimmi barki démb dama am di xam ne fay jaar ñoom daf leen di fàtt barki démb ah. dama am koo xam dama ko jiitloo mu tox mm. sànni ma sànni xër la day mel ni non day mel ni sa xol bi fii la yow nee na kuy tox ak kuy nooyi billaahi ñoo yem parce que yow da ngay tox du di kii du nooyi du dugal yow ngay tox du du dugal sa man moom aw ma ci kersa man taxi bu ma ñëw fekk la nga yor cigarette ma waxaale ba ñu juboo su ma la gisee cigarette ba wàccaat na wala ku ñëw ku ñëw dugg taxi wallaay wallaay jël café gu tàng mhm. dugg si car rapide wala duggaale moom duggaale waaw ndax jël nga café oto ñëw na nga duggaal mhm. boo nekkee sa kii bi mu ne damay naan sama café bu kii bi kii bu la tëree mu ne jéggal ma loolu dafa yomb daal ah en tout cas daal moom war nañu defaraat gàtt xel moom en tout cas hmm? euh, gàtt xel soxna Aïda éducation la maam Khalifa doon la ko wax léegi rek yar la rek mhm. soit dañ lay yar wala mu dab la comme ni mu ko waxee euh, parce que léeg-léeg nit nga nekk ci barab. Mhm. ndeysaan nekk ak say moroom. <coughs> Euh, ñu ne la lii moo fi xewaa ah, nga daal di koppi loola. bu ko defee ndeysaan boo delluwaatoo fa nga xamante ne fa lañ la yaree woon ñu ne mhm. ah kii de léegi dafa am changement. ah kii de bi fi melul woon nii. Mhm. ah kii de léegi moom ah kii de macha allah fa mu nekkoon euh, yàq na ko moo tax yar sa njaboot. lu baax la yow soxna Aida. dëgg la gis nga nit war nga koo yar benn façon yarin boo xamante ne fu mu dem moom la fay yóbbaale loolu nag euh, may la. Mhm. may la nag. moo tax may googu nag. Mhm. xam nga lan moo la koy may. yow miy kilifa gi nga am noo mel ak noo taxawee. ba nga xamante ne koo yar dina yaru. Mhm. koo defar fu mu dem dafay defaree waaye macha allahu taala kenn du fa. Euh, kenn du ko yàq wala moom du fa koppi dara foroy dara loolu lu am solo loolu nag kilifa yi ñoo ci war a taxawaat. am nañu mel. Mm-hmm. am nañu comporté woo ba nga xamante ne. njaboot gi dinañ leen dimbali surtout njaboot gu jigéen gi di leen dimbali ci hygiène mhm. di leen dimbali ci ci euh, ni ñuy comporté woo ci waxin mhm. di leen dimbali ci doxalin mhm. di leen dimbali ci suñu nekkeek seeni ñu leen mag euh, cër yi ñu leen war a jox di leen dimbali ci lu ñu am ak seen euh, séq ko seen nawle seen moroom partagé ko ak ñoom di bokk moo tax xam nga léeg-léeg nga toog ak sa njaboot ndabal añ xale boo xamante ne léeg-léeg ñu teg ndawal mu dagg lu bëri. wala muy dagg euh, tibb bu nekk ak ndawal. ko eh nii kenn du ko lekkee ñi ci des ñoom tam dañuy dagg. daggal benn dagg bàyyi ñi ci des dagg ba pare nga doog a daggaat. gis nga éducation tànk defuñu ko ci xale yi. jiital ko ci suñu bopp. réew mi dina doy waar. ndax macha allah xam nga dañ ko wax fii nit ñi dañoo wax a wax a wax ba ba. tuskare wallaay dëgg la waaraare waaraatekat yi euh, alquran dafa wax a wax a wax a wax ba macha allahu taala mhm. mais ba léegi dëkk bi mënul jub mais nañu seetaat suñu bopp nañu seetaat suñu bopp suñu mhm. taxawaay il faut ñu waat ñun kilifa yi mhm. il faut ñu waat ñun éducateurs yi il faut ñu defaroo defarwaat ñun ñi nga xamante ne ñooy jigéen surtout yaay ñun ñuy yar ndax ñun war nañoo mën a yar suñu njaboot gannaaw bu ñu yaree suñu bopp Bayar suñu borom kër ci bopam bi ñuy bayar suñu morom bu buñu génnee ci biti ñu sékkal sax di nga mujjé yar wallahi deug nit non lay ma sha allah taala lay dundé ma dafa mel heure bi dab nañu waaw waaw mom day xamna ni Euh, heure bi dem nañu li ñuy mhm. lancé waale rek mooy bokk na ci gàtt xel. wallaay su maam Khalifa amee soxla. Mhm. dem ci soxna Aida Sall. Mhm. ni ko ah, soxna Aida Sall man kat soxla dafa maa dab doo ma dimbali. wallaay maanaam soxna Aida euh, maanaam ci kersa xañ na boppam sax la mu waroon a fajee soxlaam. wala la mu waroon a fajee soxla njabootam. te ruus na laa gàntu yow maam Khalifa mu yëkkati jox la léegi nag yow au lieu nga yem foofu nga bëgg koo def yoonu tool. chaque semaine rek nga ñëwaat ni ko ah, soxna Aida tey de soxla bii laa am ginnaaw suba nga ñëwaat ni ko ah, soxna Aida tey de lii laa doomam fajal lii ginnaaw suba nga ñëwaat ni ko soxna Aida ordonnance bi ginnaaw suba mhm. donc nit ki soo ko waxee soxla mu dimbali la mhm. bul ko def yoonu tool waaw ah, parce que mun na laa rus dimbali la te xamoo moom nu mu toogee mhm. moo tax euh, sama yaay daf ñu ko daan wax di ko sant di ko gërëm soxna Ndeye Fatou Kébé ci éducation bi mu ñu defal mënuñu bul gis nit am ay millions rek soxla boo am nga dem wax ko ko parce que ka am ay millions soxlay million la war a faj. wallaay. Mbaye ko su amee cent mille soxlaam ci deux cent mille la toll. waaw tonton Chérif bu amee deux millions soxlaam ëpp na deux million mhm. bokk na itam ci maanaam ni ñuy def pour ñu bañ a gàtt xel. Mhm. istuwaaru Seydina Muhammad ak saxaaba yi ni ñu dundee. sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. loolu groupe bu koy dundee rek. gàtt xel du fa feeñ. ñii nee nañ manto la ñii nee nañ pom la ñii nee nañ jaaro ñii nee nañ yekk la. dafa ñëw ci Seydina Muhammad Seydina Muhammad xool ko ni lii de Ababacar laa ko yéene yónnee ko Ababacar mu yegg ci moom mu xool ko mu ni lii de Omar laa ko yéene mu yénne ko Omar mu dem ci Omar Omar xool ko ni lii de Ousmane laa ko yéene mu yónnee ko ko mu dem ci Ousmane mu xool yéene mu yónnee ko Alioune mu demaat ci Alioune Alioune ni lii de Seydina Mohamed laa ko yéene mu yónnee waat ko Seydina Mohamed kon foofu kenn uh, uh, kii fa maanaam kenn uh, gisu fa boppam kenn yëgu fa boppam kenn nekku fa autocentrique kon loolu lay fàttaliwaat nit ñi maanaam nit moom bu noppee jariñ nit ñi rek mhm. amatul njariñ te nit nag bokk na ci gàtt xel yow programme wu ci sa bopp ngir jariñ nit ñi mm. yow moom sa bopp rek nga bëgg a jariñ kon yow kooku matoo xalifa yàlla ci kaw suuf soxna Aida foofu la ñuy yem xanaa euh, euh, nuyu xalifa yi rek ko niñ koy defee incha allah euh, xalifa yëpp seen nuyoo ñu teg ko ci loxo xalifa général di Tijaan Sëriñ Babacar Sy Mansour mm-hmm. nuyu fa tabarakallahu macha allah rakkam mm-hmm. Seydi Alxaaji Malick Sy Maodo mm-hmm. borom xëtëfat biyal ashwaqu nahwa muhammadin fa ajabtuha wal qalbu fi hayamani الحاج سرين بابا كرسي أبدو الريكتور دي لونيفرسي سرين الحاج مالك سرين منصور سي جميل أقواكر سيد جميل يب تبارك الله سرين شيخ بو سرين منصور وعي سرين مصطفى بروم يا رسول الله جو نيخ جي سما سوبي بو المكتوم وعي سرين مصطفى بو الأمين سرين سيد أحمد بو الأمين تبارك الله سرين حبيب سي سرين مام مالك fàttewuñu woy juri al imam xalifa si Baye Mbacke ak alxaaji Mouhamed Serigne Mor jàmm si suñu maam xalifa Kebe sa Thiès wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam jërëjëf kooku di euh, maam yow moom xam nga sa teewaay moom dañ koy soxla si Malick <laughs> ñu ngi lay ziar bu wér jantal <coughs> tey moom il faut nga tàggu staff beeg jàppal bàyyi dama <laughs> waaw xam nga ñun ñoom toujours dañ fi teewal euh, association yi nga xamante ni souvent que dafay delluwaat ci information xadara bi nga xamante moom

fële ca Mboro mi ngi amal tàkkusaan incha allah rabbi Samboub moom mooy invité d'honneur bi. Mm-hmm. incha rabbi ce euh, ma xool kañ la def date bi sax xam naa ne dinaa si dellu siwaat parce que war na ñëw suba wooteel ma way incha mm-hmm. Mm-hmm. mooy Sam Dieye bu Samboub fële ca Mboro moom sa réew incha allah rabbi. en attendant les événements. incha allah jërëjëf. <laughs> jaara waaw ndeysaan xanaa di jaale suñu benn yaay bu génnoon àdduna ku ñu naan Aram Ñas euh, di yaay ci suñu benn doomu ndey ku ñu naan Fama Fall mm-hmm. ndeysaan bu suñu pap Serigne Niang bu cité impôt et domaine soxna Aram ñu ngi lay euh, jaale sa njaboot gi yëpp nag waa kër pap ma jama Fall yi nekk euh, mm, usine ñaari tali ñoom ñëpp ñu ngi koy jaale soxna Aram Ñas mi génn àdduna yàlla jéggal ko yéege ko ci barzak sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla yërëm dimaam maam ñoom Amina ak Abdoulahi nekk jigéen ju sell ju set ju baax ju am diine macha allahu taala yàlla na yàlla def àjjana Euh, muy këram fa mu jëm ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, di ziyaara rek ma ñawal lii di ku tiir ba tey comme d'habitude mhm. wax bi moo ma ko ñawal jox ma ko ni ma demal nga sol ko émission jamonoy mhm. tey mhm. yal na yàlla wéral sa loxo tey yàggal la ci ci sa atelier boobu di cité impôt domaine di nuyu waa cité impôt domaine yëpp ñoom ajaratu aji Diop ak ñoom tata Soda Gueye waa cité impôt domaine yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom tata Assou Ndiaye masha allahu taala تعالى وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام آه، شريف وقرت <laughs> اه، خلدي اه، بوتة جلال دفع من كودو يلول تو كودو لسانتك تم دو دو دو دو دنجي قرت خل دي من نيو ليلي نغا جوخ نيت ساكود سيو دارا لنغا ورون فايل سدوامي ولو مومو نغا جوخوك مكاي خير ام sëñ Fallou am na ku ñëwoon doon sàkku xar tabaski ndax amul xar tabaski mu ne bëgg nekk wutal leen ko xar ñu jox mhm. ba mu womatee xar bi génn gis xar xaru xaru yar yi mu dëppaat su sëñ Saliou ni ko euh, sëñ Fallou ni ko moom su xaru yar yi la bëgg mhm. sëñ Fallou ni ko xaru yar yi ñu ni yar ñoo ñoom lañ ko dencal mhm. wax wane ni rek nit ki war nga doylu ak du sant su loolu la may ndax ku dul sant doo doolee ko euh, kon nag ñu ngi euh, gërëm waa régie ñoom daam ñoom Ablaye ñoom Sow ak ñoom Gabi ñu nekk si suuf ñoom Souleymane ñu nu gisul ñi nga xam ne ñoo ñuy ñooy tax ñu gis ñu te kenn du leen gis ñooy tax ñu dégg ñu te kenn du leen dégg mm-hmm. ak ki nga xam ni itam euh, El Hadj Makhtar Ndiaye mm-hmm. bi nga xam ni mooy ndaak njaag comme ni ñuy faral di wax mm-hmm. moo waral suñu toogaay fii yëpp ndax moom moo jàpp am amam ak mën mën na nag xam-xamam yëpp def ko pour jottali leeru Maodo ñu ñaan yàlla lépp lu muy soor daal Ah, nan jàpp nan xam ne moom ñu ngi jàpp ñun sus cumbukaay gi mhm. eh, lu Seydi Aj Malick doon wax rek taalibi Cheikh moom na song rek mais wante maw dooy daat bu mu ragal dara mhm. ñun ñii fi toog itam ñu ngi jàpp su cumbukaay bi daal dëgg la ndam bi yàlla na ko bokk ñun ñëpp xam naa li nu war séentu du ko def rek yàlla na ko yàlla àggal si jàmm ak salaam jàmm ak xewal jërëjëf Chérif ñu ngi lay jaajëfal bu baax man tamit Mam benn deh, bu nga xamante ni sa kër ga la ñu koy wax maire Zubida maire Zubida mu nekkoon maire bu baax maire bu nga ni macha allah ñëpp la deh dem nag euh, la génn aduna moo waral sax tey ma ñëw ndax dafa nekk maire deh xam ne dañu naan ne dëkkaale des fois dina gën mbokk. Mm-hmm. ñooñu dañu dem ba jéggi dë dëkkaale dañu dem ba mbokk gi dugg ndax bi sama yaay dëddoo àdduna dañ ma taxawu. Mm-hmm. waaw dañ ma taxawu nekk ak man. nekk ak man xam nga rek perte waajur dafa métti balaa ngay xam ñi la bëgg dëgg nga nekk ci naqar donc ñoom tamit ñu nekk ci naqar mu métti ma loolu nag li ma liggéey si tey maa ngi séddoog yéen naqar bi di ñaanal mère Zubida yal na ko yàlla xare àjjana fi daw si ñun de macha allah suñu xel dal na ci moom di jaale kooku di Yousra Benjeloun di jaale aussi famille Barade yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci Ndar maa ngi leen koy jaar sama yaay ju baax moo dem metti ma lool nag mais nag yàlla moom bu soxlaa ñëpp ñàkk yal ko yàlla xare àjjana fi daw si ba tax na rek may jaajëfal aussi Cheikh Tidiane Mbaye dëkk foofu ci diwaanu Ndar moom mi nga xamante ni day waajal moom tamit tàkkusaanu Serigne Babacar Sy mu ciy woowaa Ndar yëpp ak képp nga xamante ni taalibi Cheikh nga mi ngi la ciy woo foofu ca diwaanu Ndar ma koy ziar bu wér moom tam di ko sargal di ko jox wàccuwaayam seen euh, agence euh, Mamsi Travel Voyage andis ak Tivaouane Travel andis aussi ak Dew Fall Voyage si seen euh, ziar Cheikh Ahmed Tidiane Chérif du 22 au 29 ku ci bëgg dem nag mën nga woote ci 77 806 89 60 ou le 77 533 53 59 ou le 77 114 06 52 77 945 75 56 agence de voyage à du moins on madame si avec Mam travel voyage Inch'Allah, demain Inch'Allah, même heure si une émission annoncé avec Aïda bu